mbokk jullit yi daarul xuraan ca Touba daaru mën naan ci njiital Serigne Makhtar Diène di daara ji ñu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru zeng ay ndongo yu bëri mokkale fa alxuraanul karim daara jay dox ñuy yokk seen jéego ba tey daara ji mel nii macha allah ci ñaanuk Serigne Saliou Mbacké Khadimou Rassoul di complexe scolaire franco arabe bu méngoo ak jamono état du Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneen langue majalis yeneen xeetu xam njàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco arabe kër Mam Awalo ci njiital Serigne Makhtar Diène ca Touba Darou Manane am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire li jaase ya fa ndongo yee génnee di CFE BFM ak baccalauréat di ay diplôme d'état complexe scolaire franco arabe kër Mam Awalo ca Touba naan ci njiital Serigne Makhtar Diène di ko tax a jóg mooy yaatal xam-xam ni ko Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee blog yi ngeen gis ci complexe bi mucc ayib ndongo yi ci seen nekkin seen dundiin ak seen sécurité bloc A bi ñu tudde ko Daaru Alimul Xabir bloc B bi ñu tudde ko Njenne Lagan bloc C bi ñu tudde ko Touba Xelkom ci complexe scolaire franco-arabe kër Maam Awa Lo ci njiital Serigne Makhtar Diène ca Touba Daaru naan njàngale mu mucc ayib ak jàngalekat yu xarañ lool yéen waajur yi bëggal seen jaboot avenir bu leer nañ ngir ëllëg ñu mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen waajur jëriñ seen réew taamu leen complexe scolaire franco kër Maam Awa Lo ca Touba ngir seen njàngum doom mbindu mi di tàmbali ñaar fukki fan ci weeru août 2023 ubbite complexe bi ci weeru octobre 2023 classe ya ñu limité leen képp ku ci bëgg ay leeral gaawantul woote ci 33 978 90 90 33 978 90 91 wala 77 414 79 56 77 256 12 82 scolaire franco-arabe Kër Mam Awalo ca Touba Darou Manane ci njiital Serigne Makhtar Diène di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu